mbokk yi ginnaaw bi ñu jullee ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo suñu boroom di ko ñaan moom mi nga xam ne moo am kàttan te mooy ki man te mooy ki sañ mu dimbali nu ba ki nga xam ne moo fi nekkal yoonu murit te taxawaay fi te taxawe fi lislaam muy Seex mu Muntaxa suñu boroom yokk ko ak kàttan ak man guddal fanam ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci lislaam ci yoonu Sëriñ Tuubaa mu def ko ànd kook ñun te daje cee ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu itam ñu ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te moo man mooy borom sañ-sañ moom képp man mu dimbale nu ba li nga xam ne moo nu jaaxal te te te téye lu bari ñu suñ te te moom képp moo ci man dara du keneen lu dul ñun liñ ci man mooy sabab lu rek képp lañ ci man waaye dindi ko fi moom suñ borom rek ko man moo tax nag ñu ñaan suñ boroom mi nga xam ne moo ko fi mën a dindi yàlla na ko dindi ci àdduna sépp loolu mën na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag. tey jii li nga xam ne moo ñi ngi ñaan suñ borom itam képp koo xam ne yaa ngi taxaw ngir lislaam suñ borom jox la kattan ak man ba li nga yéene ci lislaam nga def ko ci defin wu kawe sa njort loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag tey jii ñu am loo xam ne dañ ko war a waxtaane muy loo xam ne dañoo toll ci waxtoom te lu doon lu mat a bàyyi xel doonte gàllankoor mën naa am yitam ñu xam ne loolu du tee ñun jullit ñu def ko ci ñu xel bàyyi na itam bàyyi ko ci suñu xel xam ne lu ñu war la lu ñu war di bàyyi xel la loola mooy moo di aj xam nañ ne tollu nañ ci weer wi nga xam ne moom ci la ta waajal aj di tàmbali muy korite ak tabaski maanaam kori ak digg ak tabaski mooy ñetti weer yooyu yi nga xam ne ci la ñuy tabaski bi ci lañ koy def waaye waajal gi moom ñu ngi koy tàmbali ci korite yi mel nag comme ñu ngi ci korite yi dafa mel ni waajalu aj tollu nañ ci waajal ko loolu nag war naa tax ñu dellu siwaat doonte ñu ko mënul itam ñun ñu xam ne ñëpp xam ne ñun ay jullit lañ ñu ngi bàyyi xel li nga xam ne moom lañ suñu borom sant ñu ngi koy ñu te duñ ko génne ci suñu xel mukk ñu koy bàyyi xel di ko di fas yéene koo def ci saa yu ko suñu borom jàpp ndalee loola nag moo di aj kon aj moom lu am solo la ndax li ñuy won ne am na solo bi ci njëkk moo di ne xam nañ ne bokk na ci juróomi ponk lislaam yi muy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ginnaaw ba julli woor weeru koor natt ak aj kon yooyu mooy yi nga xam ne ñooy ponk yi nga xam ne wala ñooy yi nga xam ne ñooy ponk yi yi nga xam ne ñoo tëye lislaam waaye nag xam nañ ne ponk kese rek doonut loo xam ne mooy taxa taxawal ab néeg ab néeg boo ko wutaloon ay ponk boo ko wutaloon ay keno ba mu ba keno ba nekk fa itam fu mu neex mën naa ñaaj dugg ci biir mu am nag leneen yoo xam ne yooye ñooy tee nga mën a ñaaj dugg ci biir lislaam loola nag mooy jikko yi nga xam ne moom lañ suñu borom sant ñu war koo jëfandikoo mu war a nekk ci ñun ndax loola mooy tax ñu xam ne ñun ñii ay jullit lañ loola mooy wane ne itam ñun ñi ay doomu aadama yi lañ yoo xam ne bàyyi nañ xel xéewal gi nga xam ne moom la suñu borom jox muy suñum xel ñu di ko jëfandikoo ci li nga xam ne nañ ko war a jëfandikoo ndax jikko yi mooy wane ne mooy wane ne nit ki mat na nit di ta di sàmm jikko yi di ko bàyyi xel mooy wane ne nit ki mën na nit waaye nag lii wane ne nag yow mii nangul nga su borom mooy li la suñ borom sant nga di ko def te loola mooy ponk yi nga xam ne mooy ponk yi nga xam ne ñoo téye lislaam bu ko defee nag bu ñu xamee ne bokk aj bokk na ci juróomi ponk yi nga xam ne ñoo téye lislaam bokk na ci dem li ñuy won ne aj lu am solo la lu mat a bàyyi xel la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ku ko mas a laaj ne ko jëf yi nga xam ne moom lañu jëfal suñ borom yan ban moo ci gën bi ci njëkk mu nekkoon nag bi ci njëkk mooy gëm yàlla ak yonantam akub yonantam xam nañ ne gëm bokkut ci li nga xam ne mooy jëf yi waaye li tax nag mu tudd ko mooy dafa xam day ba dafa bëgg a xamle lii tax ñu nangu jëf ci biir lislaam ba noppi bala ngaa jëf da ngay xam li tax ñu ñu nangul la sa jëf nga soog a jëf mu tax moo tax nag mu ne ko bi ci njëkk mooy nga gëm yàlla mooy da ngay kon mu mel lislaam amu ci coobarewu joo xam ne danga koy def te defewoo ko te defoo ko te tegoo ko ci kaw nangul suñ borom ba noppi nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faw nga nangul yonent bi nangul nangul suñ borom soog a nag mën a jëf jëf yi nga xam ne moom la lislaam sant boo noppee itam man caa teg coobarewu gi nga xam ne bëgg nga koo def waaye nag bu gëm yàlla amut nanguloo yonent bi jëf joo mën a def tam ci biir lislaam te te loolu amut coobarewu googee boo ne coobarewu laa ci doo ci am dara ndax ndax nangaloo nangaloo ki nga xam ne moom nga war a sañeel contrat contre defoo googu moom contrat bay bay mën a jëf ci bi bay mën a jëf joo xam ne dana war a mën nangul li nga xam ne moom ngay jëf loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñu ne jëf ci lislaam balaa ñu ko nangu da ngay nangul suñ borom mi nga xam ne moom moom jëf ba noppi mu soog la nangul yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi lay won ni ngay jëfe bu ko defee nag nga soog a mën a jëf jëf joo xam ne danañ ko nangu kon li bi ci njëkk mooy mu waxoon ko ne ko gëm yàlla gëm yàlla gën yonante bi mooy jëf yi mooy li nga xam ne mooy bokk ci jëf yi yi suñ borom gën a nangu yi gën yi gën ci suñ borom mu tegaat ci ne ko nag bi ci teguwaat mooy jihaad fi sabilillah loola li muy tekk mooy nang suñ borom nag bi nga xamee ne gëm nga ko na nangu ne kii moo lay wan ni nga koy defee muy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam war nga caa teg nag lislaam joojee jaral la dara faw na lay jaral dara ne la jaral sa bakkan ne la jaral sa sa alal ne la jaral sa man-man ne la jaral sa xam-xam bu loolu amut maanaam jëf ji ba tey doonut loo xam ne ñu nangu li ci lislaam la doonagul jëf ju baax faw boo nangoo ne yàlla nangu naa ne moom mooy ki nga xam ne moom a sañ a digal ba sañ ak moom ba sañ moom contrat xam ne ne xam ne itam jëf joojee ma ko nar a jëfal de mun ma koo jëf ci te mu baax ci lu dul ma teg ko ci kaw ni ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale da nga caa war a tegaat itam ne lislaam jii faww daamaa war a jaral dara nara jaral sa alal nara jaral sa sa sa bakkan nara jaral itam sa man-man nara jaral sa xam-xam loolu mooy mooy bi nga xam ne moo ci tegu beneen bi nga xam ne moom la ci tegaat moo di ne dafa wax ne bi nga xam ne moo ci teguwaat mooy aj goo xam mooy aj kon mu mel ni kon aj aj goo xam ne defe nga ko ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee nee na mooy bi ci tegu ci jëf yi nga xam ne moo gën ci jëf yi ñu jëf ci biir lislaam loolu kon di ñu woon ba tey am solo lislaam am solo aj beneen bi nga xam ne mooy mooy mooy moo nuy wan ne aj lu am solo na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wone ne aj kat ci xeeti jihaad yi la bokk mu ne bokk na ci li nga xam ne day wane ne yow kat lislaam jaral na la dara ndax xam nañ ne boo fay jógee boo ko dee def da nga bàyyi sa njaboot da nga bàyyi sa kër danga bàyyi da nga danga nga dem la da nga bàyyi la nga daa sol da nga bàyyi fa nga daa tëdd te loolu lépp nga di ko def ngir yàlla kon mu mel ni aj kon moom itam ci xeeti jihaad yi la bokk ndax wane na ne am na lu la lislaam jaral kon am na koo xam ne dafa mës ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ko ne ko man de damaa damaa doyadi maanaam sama kàttan bëriwut dama caa yemuma ci sama kàttan bëriwut kese waaye dama caa teg nag ne doon koo xam ne damaa ragal te xam nañ ne lislaam dana laaj nag léegi nga jëf léeg-léeg nga jëfandikoo sa kàttan dana laaj léeg-léeg nga jëfandikoo nga nga nga doon ko ku ñeme te te dëgër loola nag moom da ko woon ne ko man awuma kàttan ku doyee di laa ñaareel ba itam ku ragal laa léegi nag kon lu may def mu ne ko ah, kaay may won la loo xam ne boo ko defee day wone ne yow kat islaam lum am na lum la jaral te yaa ngi koy def loola nag mooy aj mu ne ko kaay ma won la loo xam ne boo ko defee dana wone ne lislaam am na lu la jaral tal lu la jaral te foofee kat loolee kat dégg sax du la ca jam mu ne ko loola mooy lan mu ne ko mooy aj kon loolu ba tey di ñu won li nga xam ne mooy am solo aj beneen bi nga xam ne moo ñuy wonaat itam ne aj aj lu am solo la moo di ne dafa bokk ci li nga xam ne day far ay bakkaar ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa xam le ne képp koo xam ne aji nga te ba nga ajee nga sàmmoonteeg li nga xam ne mooy defin wa nga def ko ci defin wi nga xam ne ni la ko yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale ba nga ca tegee nga teg ci itam xam ne foo def googee rek doo ca yem waaye danga nga caa war a boole làmboo jikko yoo xam ne day wane ne yow mii kat mat nga yëg nga nit gi war a nekk ci yow nekk na ci yow doo doo caaxaan doo génn doo fa def loo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la lislaam sant nee na boo ko defee boo dellu suwaatee da ngay mel ni koo xam ne kuy soog a juddu loolu itam bokk na ci li ñuy won ne kon aj lu am solo la ñaareel yeneen ni bokk na ci li ñuy won tam ne aj lu am solo la aj kat yi ak ñi nga xam ñëpp ñiy aji yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xamal ne ajkat yi ak ñi nga xam ne dañuy umra ji nañ xam ne ñooñu kat gani suñ borom lañ te xam nañ ne suñ borom ku ko gane ji ku ne xam ne ku man gan la ku ku ku am sañ la sañ-sañ la ku man ku am kàttan la itam ku mën a def la loola nag mooy lam leen lam leen ci defal moo di ne moom day suñ ko suñ ko ganisee luñ ko laaj mu jox leen ko ndax am na ko bu luñ ko duñ def yitam te jéggalu ko mu jéggal leen ko ndax mën na ko kon bokk na ci li nga xam ne moo nuy won ne aj lu am solo la bokkaat na itam li li nga xam ne moo won ne aj lu am solo la moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dañoo xamal ne umra day boo defee umra ba defaat ko ba nga koy defaat diggante boobu loo fi def ci ay ci bakkar suñ borom dana la ko jéggal ñaareel ba itam ci bu fekkee ne yaa ngi teet bakkaar yu sew yi ñaareel ba itam moo di ne aj moom nee na amul pay lu du jann ah, lu du ajjana dugg ajjana rek mooy ak payam kon mu mel ni ba tey loolu dañuy won ne aj lu am solo la lu mat a bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa du di ñu xamal itam ne aj day lu am solo la ndax ndax ndax da da dañoo ne dee leen faral di aji tey faral di umra ji ndax umra day ak aj nee na da li ñu gën a li nga xam ne moom lañ gën a ragal ci àdduna si ñun doomu adama yi muy ak ñàkk nee ñàkk googee da koy jëlee ci ñun ñeneen ba ñaareel ba itam moo dina ay beneen bi nga xam ne moom la ñuy ragal ngir ëllëg muy bàkkaar yooyu itam da koy jëlee ci yow kon mu mel ni li nga gën a ragal ci àdduna da koy jëlee ci yow li nga gën ci àllaaxira itam da koy jëlee ci yow muy aj ak umra boo ko dee def te di ci te di ko defee ni nga xam ne la ko suñ borom sante li nga gën a ragal ci àdduna mooy mooy ak ñàkk li nga gën a ragal àllaaxira ëllëg mooy ay bàkkaar suñ borom dana la dindil bàkkaar yi ñàkk gi ragal fii ci àdduna itam dana la ko dindil kon loolu ba tey di ñu woon li nga xam ne mooy am solo aj waaye nag aj aj li muy am solo am solo loolu lépp itam benn yoon rek la la wàcc la la war ci sa dund lu dund ne yow yaa ko war yaa ko waral ci sa bopp nag bu fekkee ne yaa ko waral ci sa bopp la nga waral ci sa bopp da ko war a def li nga xam ne yaa ko yaa wax ne tey di bu ma yàlla génnee ci musiba sàngam wala bu ma yàlla xéewalee nangam day dinaa def nangam nangam joojee boo ko xasee wax loolu danga ko war a def maanaam doonatul loo xam ne sañ nga ko bàyyi ndax ndax ndax warteef la woo xam ne yaa ko teg ci sa kaw ñaareel ba kon loolu mooy woon ne ba tey aj kon benn yoon rek la lay war ci sa dund ndax dafa yonente bi sa alayhi wasallam dafa mas toog di wax dafa mas di waxtaan ak ne leen yàlla day xam leen ne waral na ci yéen ngeen aj am ku daal di jóg ne ko ndax aj googu at mu lañ koy def yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne cell mu delluwaat ne ko ndax aj googu ci at mu ne lañ koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni cell ba mu waxaat ko ba muy ñetti yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam le ne bu moo neewoon waaw de da leen di war at mu nekk te xam nañ ne kenn ku ne munta am manu sa at mu ne nga def koo de kon bu bu ma nee cell ci dara nee leen ci cell ndax kat gënu leen a xam suñ borom lu baax gënu leen ko ko bëgg gën a bëgg kon nag waru leen koo jiitu bëgg a wone loo xam ne day mel ni da ngeen a gën a bëgg suñ borom lu baax wala da ngeen a gën a xam suñu borom lu baax loola nag tax na su ma leen waxee dara na ngeen ko def la ci seen kéemtulaay kattan su ma leen teree dara ngeen bàyyi ko kon loolu ba tey am jàngale li ci lislaam muy ñu xam ne li ñu suñu borom sant mënuñoo def loo xam ne weesu na ko ci bëgg lu baax ba am ca lu baax li nga xam ne moom la suñu borom tere itam munuñoo def ci mënuñoo bàyyi dara ba tax ba man caa am lu loo xam ne mooy moo man caa am dara ci lu dul ne dañ koo teg ci li nga xam ne moom la ñu tere loolu muy bind yoo xam ne ñu mat a bàyyi xel la mooy mënuñoo gën a bëgg suñu borom lu baax mënuñoo bëgg gën a bëgg mënuñoo gën a xam suñu borom itam li nga xam ne moom la ñu tere li lan moo nu ci gën a lor wala lan moo nu ci gën a indil njëriñ kon li nga xam ne moom la ñu sant nañ koy def ci suñu kéemtalaay kattan li nga xam ne moom la ñu tere nag moom lam ca wax mooy nañ ko bàyyi rek mooy mooy li nga xam ne moom nu ci war kon yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan. te mooy borom man te mooy ki nga xam ne itam moo mën a dimbale doomu aadama mu mën a taxawee li nga xam ne moom la ko sant moo mën a dimbale doomu aadama itam ci mu xam ne moom la ko tere yàlla suñu borom dimbaleel boppam ba lim nu digal ñu mën koo def ci defin wi nga xam ne noonu la ko bëggee li nga xam ne moom la ko te moom ñu tere itam ñu mën koo bàyyi ñu mu jox na kàttanu mën koo bàyyi loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal di sant suñ di ñaan suñu boroom nag moom mi nga xam ne mooy borom kàttan tey borom ak man yàlla nañu gën a dëgëral gën noo kattanal gën noo xamal boppam bañ bañ bañ xam ne moom rek moo mat woolu wóolu xam ne itam moom képp moo mat a doyloo xam ne moom képp moo mën a def xam ne moom képp moo mën a dindi loolu ñu bàyyi ko ci suñu xel ndax loolu moo ñuy jëriñ àdduna ak alaxira rabbana la tuaxisna in nasina aw axtaxna rabbana wala taxmil alayna isra kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxamilna ma la taaqata lana bi waxfu anna waxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alxawmi alkafirin rabbana la tuaxisna in nasina aw axtaxna rabbana wala taxmil alayna israk kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxamilna ma la taqata lana bi waxfu anna waxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana innana talabna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin wa aqimu salaam